sarax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gaston Mbengue may joxe position ci situation bi làmb ji nekkee Alioune Sarr dana demam du dem arbitre yi war nañoo gëreefam déet Gaston Mbengue joxe na ci xalaatam moom la Don King la mu yëkkati mooy il a trop d'hypocrite dans l'arène làmb ji ay naa fekk képp ci ëpp bu ñu coowee ba Alioune dem làmb ji dugg ci guta arbitre yi lii ñu def du dëgg du yoon lii ñu def nii ñoom jekkul jaaduwut ñoom arbitre yi dañoo waroon ki mënu laa njaboote boot la ba noppi nga koy bundu xataal ànd boo gis solidarité da caa baax solidarité ci ànd mooy tax ñuy xàccendoo di leer yàgg na fi na li ma xam ci moom mooy nit ku jub la nit ku honnête la bu ñu dof dofloo ba Alioune dem lamb ji taxaw lay def dootul dox waxuma ngir défendre Alioune waaye lamb ji lay défendre ñi war a jóge ci lamb ji mooy ñi nga xam ni doonuñu fi dara site internet bu ñu romb wax fa toj toj dem seen yoon arbitre yi du CNG moo leen aj waaye règlement moo leen aj Tyson aj nañ ko fi juróomi at te boolewu ci wax ñoom nañu xam ne règlement bi ajoon Tyson moo leen aj te ñoom millions yi ñu dégg ci lamb ji bu mu tax ñu yaakaar ne war nañ cee tabax kër yor ci ay oto lamb ji amul koppar dara nekku ci ñi na Matar ba jël ay décision dàq Alioune Sarr loolee Gaston àdduna ca la mu mooy heureusement Matar ba xippi na ay bëtam mu ngi xool ña xippi seen bët di xool fu Assane di mu jég Mame Balla mooy amateur yi ne bile combat dina am Balla ma waroon a mbay guy togg ba mu complet ca presse café la ma avance 500 mille yokkaatu ko ca layem ba ma koy jox sama manager Pala Joob ak sama coach Mbay Jàll ñu nga taxaw ba loola weesoo ñu ngi koy laaj waaye du dërëm bu ca yokk moom Assane waxoon nañ ko lu leer laataa ñoo dem sunu avance bi duñu nangu di ko jot par weccet jox nañu ay rendez yu bari waaye gisuñu ko dégguñu ko beneen ba mooy dafa bëggoon a régulariser bi saa joxe kase dem na sax ba bëgg Macky wax bu mënee na ma delloo sama 500000 yi ma ko joxoon aw lenn lu may wax ak moom manager am laa signé contrat bu dee daf maa bëgg a dem bëreeli keneen moo xam bu dee dafa gis beneen avance tax mu bëgg maa delloo sama bos na ñëw dégg naa promoteur bi dox combat am te njort naa ne moom la bëgg bëreel bu dee loolu la bëgg naa am ngorug delloo ma samay 500000 francs Pala Diop manager ba ne ca tonn ne Assane li ma koy conseillé mooy na joxe avance coronavirus bee tax roi des arènes daw ñibbisi wala day préparer combat am kenn xamul jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci yéene kaay